ah abi la jeunesse ñun lupp lañ jël teg ko léegi aduna bi tout se ñun lupp lañ jël teg ko ci senegal di xool lépp nu muy doxee dara duñu fi rëcc bii nii dañ koy bind ci anal yi kilifa bii la fi fekkoon mu fekkaat fi kilifa bii lii dañ ciy bind livre bàyyil ko suñu doom ne amoon na ay nit ñu ne kilifa diina lañ ci réew mi nit di islaamu Sénégal fii jàmm ñoom ñooy garantir jàmm réew mi ñoom ñooy garantir islam ci biir senegal waaw ne ay seen maam ñoo tëdd seen maam ñoo ñaanal sénégalais liggéey seen maam yi moo fi ne ba léegi ba pare ñu toll ci affaire bii ni ñuy bëgg daw seen responsabilité déedéet seen maam yi bu ñu fi nekkoon dinañ doon wax bu génn leen ngeen wax seen maam yi bu ñu fi nekkoon lii duñ ko seetaan kon di ngeen génn assumer génn leen ngeen assumer ngeen wax déedéet fii du xeexu politique bi yoon de xeexu diine la génn leen ngeen wax seen domaine la bu ñu newoon politique ngeen ne déedéet ñun duñu politique lii du politique lii domaine u diine la di ngeen wax

ba yow ñu lay jox statut chef religieux ah loolu nekk na responsabilité bu rëy a rëy rëy ci doomu aadama chef religieux man kenn duma ma mën a jox statut chef religieux parce que jàpp nañ ne aw ma makaama boobu donc ñii may waxal ni ñoom ñoo ma gën a jàng fuuf ñoom ñoo gën a xam diine bi lan la wax ci mbir mi fuuf ñu ne duñu wax pour lan affaire àdduna tax ba doo wax ci doo dëggal waxu yàlla déedéet déedéet kon statut nañ ko changé nañ changé statut yépp joxe yeneen statut yu bokkul ak chef religieux nañ de statut dañuy de statut de faux statut politicien jeex na ñu génnee statut chef religieux dëgg du neex mais moi moi dëgg yàlla le la bëgg dëgg neexul mais moi mooy dëgg kilifa diine këru diine Sénégal yi yëpp laay wax ku fi waxul tu fais partie des complices ak Macky Sall kër yëpp laa wax bàyyi ma benn kër même ci chrétien yi monseigneur ak pasteur ak mon père yeeg yeen ñepp la wax ku ci waxul tu es complice waaw vous êtes complice te duñ leen fi bay mu jall ni déedéet du fi jall yoo xëy ne non da ngeen di dinga da ngeen di saga kilifa yi saga wu fi ben kilifa kenn deggu fi ben saga bu jóge sama gémmiñ génn la ngeen wax yalla nga leen di xaar yonante mo ngi leen di seetaan deggal leen sen bop la ngeen wax donc Macky sa distraction bi du jall bu jàllee sax kilifa diine bu ñu kau ak yow tedd ci kaw affaire ñun peuple bi dinañ réclamer que suñu loi bi mu jall par la force. maki amo foy rëccee moom nga fi amul amul buntu bo fi rëccee kilifa diine yag nañ fi wax ni peuple bi dafa ranké ñu sagan ñu nañu du dëgg da ngeen di sosal kilifa yi ci réseaux sociaux ah peuple bi tumuranke woo nangul nañ leen ci politique bi mun ngeen naa bañ wax bu leen nexé ci diine bi tamit lan ci wax parce que concerné wu leen dusan <laughs> seen domaine tamit sama gars yi nag sama gars yi sama gars yi sama gars yi nañu waxante dëgg politique boo waxee ñu ne la déedéet déedéet kilifa duñu politique ah 95 pour cent de musulmans combien de pour cent de chrétiens ci réew mi nga xamante plus de 98 pour cent de croyants ñu ne dañuy voté waxuñu leen dañ fi indi charia ñu ne dañuy voté benn loi pour criminaliser benn affaire ngeen ne du am foo leen ko Vous leen ko teg France France voté une fi loi contre contre contre polygamie hésité ça? sax c'est assemblée nationale ñëpp a ko voté nous nous toog ne non discriminés. discriminer ay français musulmans Nous sommes diine bi dafa faire ak loolu ils s'en foutent c'est l'Assemblée nationale daf ko voté la France interdit la polygamie boo que France boo bëggee vous ñaari jabar dañ lay dañuy nangu seen papier ñu hésitez-vous hésité wuñu seen assemblée nationale ah xool ndax dina am ñi nga des gens dañ leen di gaañ dañ leen di gàllankoor seen yoon nekku nee nañu loolu mooy seen principe réew seen réew noonu la doxe ku ko bëgg nga ñëw ci seen dëkk ko ko bëggul nga génn seen dëkk dem beneen dëkk waaye ñun tamit c'est la même chose ñun tamit c'est génn leen ngeen wax <coughs> génn leen ngeen wax ndaw yi dañuy mujjee am dëgg de te yàlla loolu la indi léegi réseaux sociaux yi moom mooy mujjee nekk sëriñu senegal yu bëri sénégalais yu bëri ci réseaux sociaux yi dañuy mujjee jébbalu à distance na ñu jébbalu naa ci réseaux sociaux yi moom mooy sama sëriñ moom moo ma jàngal lépp li nga xamante ne dañ ma ci doon nax réseaux sociaux yi moo ko jàngal Sénégal yu bëri dinañ ñoo jëbalu ci réseaux sociaux yi parce que lu ñu leen di présenté comme lu bon ndeke loolu mooy seen intérêt loolu mooy wone la vraie réalité des choses fii nii dëgg kese lañ fi yow réseaux sociaux fenn amul